doon lu ci def ci li ba noonu conclure lii teen bi moo di tawxid ak Cheikh Ahmadou Bamba tawxid ak Cheikh Ahmadou Bamba teen bu am am solo la ndax ku nekk ak sa tawxid kenn bokkul sa morom tawxid ndax dara yi ñooy sutante ñoo ëppante ma bañ li ma doon wax lépp conclure ndax laaj yi nga am na solo Cheikh Ahmadou Bamba moom dañ ko yomb a waxtaan rek jafe waxtaan la ndax day leneen bu sëñ bi rek bu borom xam-xam rek bu wàllu yi rek rek day lan la buñ fi daal ñëw borom xam-xam yu bari ñu fi lool dañ jël urwa ci seen ay tur xam ne ay téeméeri téeméeri at la ndax ñu ngi gis naan yàgg na fi xam-xam yàgg na fi duñ gën ci yàgg fekk na islam dugg fi ay taarif yu bari taarif nañ ko fi mu réer xam nga ne fii du réew mu mbéj moo xam ne dafa yomb trop ñuy am junni at lu gaaw yi ci gën a bari ay ñëw yoo xam ne dëkkee ak i maar di jëfandikoo safara di ko jëfandikoo ci togg ak leeral ak jaar yu mag ñi daan def téere yu bari yàq te bindoon nañ ko fi fi dikkoon bindoon nañ fi ci arabiya ci ay woy bi ñu jeex bind ci tawxiid bi ñu jeex bind ci fiq bind ci naxu bind ci balaaxa lu ci bari mën nga leen lim fii nga xam ne bindoon nañ ci te foofu ci boppam mooy li nga xam ne ñu wax la fi dugg si te foofu fi dëgg suuf mooy yokku lislaam ndax danaa ngëm ak jëfe sellal suñ ko waxee woon xam ngeen ne ñoom ñoo wax léegi ne ëndut foofu ñuy jaar ba àgg ci yàlla yoon gudd la yoon bu jafe ba kan da nga xam ne bëri na seytaane ñu bari ay pexe ñu wax nag ne Cheikh Ahmadou Bamba moom la dinaa lu n'importe qui ñu ne porte quel fee ñu ne porte quel indi ñoo ko waxee ndek ñu dikkee dafa gàttal yoon yi tawxid moo xam ne mooy génne ci sa xol lépp lu dul yàlla soxla dama placé yoon woo xam ne moo gën a gaaw ci yoon yi xam ne fekk woon ñu yoon wu yeneen tëral ñu dikk jaar ca ñun ci boppam yàlla ci ay yoon waaye dañ ko xam ne ni mu wax daal di waxee ne kay yi la ko fi war a defal kay yi mooy lan dundee étape yëpp te ànd suñu borom am loo xam ne du ko maye mukk daf koy jaay te jaam bu amul njëgam doo ko am mu am njëgam waxaale ko suñu borom jaay ko ñu nga fayee njëg dafa ñaraat daf caa teg yeneen yu bari ko yoo xam ne bokkul woon ci njëkk ak yoo xam ne kenn sant ko ko woon mu def ko ngir bëgg gëm bëgg yàlla ak xam gi mu ko xam ak baax gi yàlla baax ci moom suñ borom defal ko loo xam ne wax na ko ay yoon defal ko kenn mu daal di tërë yoonu tërë bi mu bokk nag ci ko gars yi ci ko jiitu woon tërë de te tërë bi mooy jox nit tawxiid tëgg tawxiid yoo xam ne daf koy def ci xolam jëmër tàggat moom def ko ci ay cëram def ko ci ay definam def ko ci ay waxinam tawxiid yooyu jox ko jikko yi ma doon jublu jikko yi tàmbalee ci bi nga nekkee taalibe dugg si ci yoon bi ndax bu ñu dikkee bëgg sëñ Tuuba doy loo ko ba gën ko ba ni naa ko joxe sama bopp foofa la tax yi di mag ñi tàmbali dugg li ñu waxee ne nihayatul fuqahaa bidayatul fuqaraa borom xam-xam yi jàng yi fa ñuy yem ci yàlla kii wàcc adduna wàcc lépp lu mu ngi jox boppam ku ko àggale ci yàlla kon moom foofa la tàmbalee noonu kon ñu ne gàttal day yoon bi bu ko joxee boppam mais ki joxe sa bopp te jotu woo ci dara ndax day kii jaaxle wu ma fi am mooy ki nit jox boppam mu nangu te mën lu ko dara ëllëg waaye ki jox boppam nit koo xam ne yàlla xamal na ko ne mënal nga sa bopp mënal keneen bañu ne ko bàyyi njàngale ak yeete nangoo njëg ba ñuy àggale jaam yi ci seen borom xamante ni yàlla jox leen texe mooy assurance mooy liggéey fondement bi nga xam ne mooy fondement wu mooy moo di loolu. bu ko sallallahu alayhi wa sallam rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bil darsi ñu la topp xamal leen yàlla seen leen ci li andi tasawuf bi al himmat mooy itte waaye bu leen yaay am njàngum kese ki la jàngal bu la jàngalee ba nga xam ne lay bàyyi sa bopp la say yaa ko xam boo gisee yaa xam boo gisee yaa xam joxe sa bopp nag mooy joxe lépp mooy jeex na yow ki la jox sa bopp la ñuy laaj ki la jox sa bopp la ñuy laaj ak mu la defal mu xam ni yoon woo xam ne Sénégal gépp gépp nga bëgg a xeet li moo di yoon tërbiya tàmbalikaay bi mooy ni ci mujj yi xam ne dafa jóge ci milieu boo xam ne mooy milieu profane milieu boo xam ne du maanaam ci génne ci mbooloo yoo xam ne xam nañu adduna jamono jëm ko tàmbalee def lii sëñ Moussa Ka waxee ci muqaddima ñoom géej gi mooy réew mu lëndëm moo xam ne l'islam dugg na ko waaye seen xol yi leeragul leer booba seen seen mbokk ca bay waxuñ leen xam nga lu yàlla bëgguñ ko wutuñu ko wóor leen doon seen seen mbokk la ne lii waaye nan lañu nekke dañuy tariyaax di tabax ñii jaxasoo kàngam yi di leen atteel di leen wax lu leen neex di leen dox di leen neex ñu nga xam ne ay baadool lañu ñii ñu ngi ci métier yi ñii ci tool yi di bay ñii sëñ bi nga wax ne kenn amatu tax ñu ñëw ci ndaay kaa nga ci fóore sax di jaar ndaay lislaam di jooy yi kat dëgg na gàddaay ci sowu jant fépp mel na la mbaay li mu ko waxee rek yàlla day woon Cheikh Bamba mooy ki jóg suñu bopp xamal ko ne ko yaram mu jaam ñi te képp ku ñu sampoon sa gént ca sa gént ca saxara yaa koy senti yóbbu ko ak ñu jëm joo xam ne du nit ñi xamul dara rek ko yéen du borom xam-xam yi rek ko yéen du wala maa ngi aari ko yi rek ko yéen ñëpp te nee na daal li ko li doon xam yaay kan bi dara bi aay ne aaya kan bi mooy jaam bi dañ koy génne ci lii boobu mu nekkoon boo ci jotee nit ñi dara nga boole ko mu mel yoon ñoo xam ne yàlla lañ bëgg moom la ñuy wut ñu leen jiite di leen xam ne yàlla ñuy wax yàlla kese ba ñu fàtte lépp lu dul ci ak ñu fàtte lépp lu dul yàlla yàlla rek nekk seen xol ñu boole si kar ak xasaay ji ak wéetal yàlla ci ndigalal ci Ahmadu Bamba radiyallahu anhu nekk si loolu ba set bëcc koo ci xam ne kii yër na sa xol ba dara nekk si lu dul yàlla bu sant la di yebal ay nit ñuy faj te wéraguñu ci yow nga xam ne ñëpp ay docteur la ñoo xam ne li ñuy faj du yaram waaye xol la ñuy faj dañuy fóot xol ba mu set ku ci setle ba mën a setal ñu sampale ñeneen ñoo xam ne ñuy fóot te tilim ñoom wër la nga setal leen ba ñu set ñoom ñee seen bopp itam kenn ku ci nekk ñu dem sampati nga xam ne bu wéyoon rek adduna bépp adduna bépp te ñu ci di ay wàllu yu set lañ ñu jaaxal ci ñun moom ba tey du ñu ñëw ñu yàgg ci ñoom ndax boo leen ci njàng rek boo ci ngay jàng ba ñëw ba jàng ñëpp dafa gën a yaatal ñëpp nga ñëw mu jommal la dalay wax la baax. tàmbale ko ci doomu soxla yi alquran ñu day waxtu alquran bu bind kaamil ba àggale ba topp jox ay kaamil yu topp ba tey ba ñëw ci bu ñëwee mu teg ko ci magam daal di lay wax saar wa ak aaya ja su yàqoo kon ka nekk nga def ci sindi doomu aadama yi booba ñu maam alquran ñu gisal seen bopp yi waaye amaguñu seen aajo fajugul ba mu tàmbalee képp ku wattu alquran ñu jox ko kaani ñu jox la ci alal lu dul jeex du nangoo lu dul ñaari loxo du ko nangoo lu dul alquran dañ ni mu mokkal mokkal mokkal mokkal ba raw ci ñoom mu nekk wow ci kaal ba nekk mënu koo daan ñëw mbamba ñu foote roox nit ñi ñu accès naka la defar téye bu mag boobu loolu alxuraan ñu waaw daa xanaa man ko lool de mu ne ko suñu mu ngi teg ci nga xarit waa ji suñu mu ngi mu ngi la xarit xarit Fatina sax mu ne xarit Fatina sax mu ne ma baaxee moom bi bu ko yoree dama bële mu ma mel ne ko du wëcc xarit naa gën a mu ne ko waaw kañ ndax suñu borom dugg ko benn waaye bu bari xam-xam lool ñëw yow suñu ci gën a mën nga jàng lool mën naa dugg ci loolu dana ko waaw waaw mais kon kon ah kon de mën ngaa faral di ne waaw kon ñu faral di wax yow de si xanaa am na ñu ne ko taxaw na ñu ko daan na ko xaar nga ne ñetti yoon ku ci nekk rek dafa gàllankoor ñu ne ko lu la si mboolu dafa ñu la dañ naa xaral ko ah parce que ay billahi ñu ne la on billahi ñu sudan la ñu kooku di jàng mu daan leen doomu soxna yi ba ñu daj su ñu dul doomu soxna bu wan leen loo xam ne mosuñu ko gis mosuñu ko dégg bu tàmbalee ci xam ne tawxid bi ñu doon wax tawxid bi ñu wax tawxid ñaar ak tawxid bu ñuy jàng ci lan ñu ko dégg ci nopp ak taw léegi tawxid boo xam ne xol bu xam yàlla lay doon ñu ngi nag yàlla yëpp yàlla yëpp koo xam ne lépp lu ñu jëf fépp fu mu toll yàlla rek moom moom lay yëpp yàlla tax mu la muy def te yàlla ci yàlla la koy defe buy bàyyi ci yàlla lay bàyyi lépp lu muy jàpp yàlla buy bëgg yàlla ay tax buy bañ yàlla ay tax tawxid yooyu nag muy sol ci xoli doomu aadama yi mu waral suñu borom nokk xol yëpp jox ko ko dañu ne zimamul wala asri la dem naa ni yëti umaram ko ñu naan kim xaata ko jëni suñu borom nit ko si ni ñu bëgg xol yi jox ko xol képp ku texe la wax xol képp ku texe suñu borom jox na ko jox ko nag ñoo si bindeef yëpp ku ku ku texe ku texe yëpp la wala la wala wala bindeef yëpp la tawxid bi nga xam ne moom lay sol ci xol yi mooy tawxid bi nga xam ne boo ca amee benn pepp zarra atom xeeral xalaat safara am na jëmm yoo xam ne bu ñuy jéggi siraat xam ngeen ne siraat dañ ko gàtt ci jigéen jaar ma dafa tiim safara safara yi def naan ko gaawal waaye bi yaa ngi fay sa leeroo xarkanam bee ngi fay sama safara yi te loolu lu ko jox muy tawxid mooy tawxid bi bii jooju ñu waxoon ci jëmm bi nga xam ne léppam tawxid la dañu sëñ Tuubaa aada yii xam ne moom la doomu aadama yi def wax duñ ciy def ak jaamu yàlla la ndax yàlla rek la ciy yéene ndax nee na awaalam tahaa lil xaqi wal xaq dinna suñu borom dindi sama bànneex def sama dëgg rek muy yàlla rek mooy sama bànneex nga xam ne ci yàlla dong lay bànneexoo leneen safu ko kaane safara ndox ak suukar dara safu ko lu yàlla rek sax ci moom day sax ci ginnaaw leneen dara sax ci ginnaaw tawxid yooyu mooy tawxid bi nga xam ne moom la yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam amee woon bi nga xam ne day ñu ngi koy sànni ca safara wa te xaw yëgu nañu ko sànni ci safara Jibril doole ko ci bi ñu ko sànnee ci mbaq bi ba muy xalambaay yi ci safara wa ne ko waxal sa borom bu fay safara bi wala man ma fay safara bi maanaam suñu borom lay wala yow rek yaa am sa yërmande ñu ñëw mu ne ko man rek maa am sama yërmande ñëw mu ne ko bàyyi maam moom xam na mu ne ko ñaan ko boobu ñaanal sa borom bu fay safara bi mu ne ko suñu borom xam na li ma nekkee xam nga kon lii malaayika bi for for for fa mu teg Ibrahima Ibrahima sori na ko ndax Ibrahima gis na ni kii nit la doomu Adama te doomu Adama ku nekk dafa dundee noo xam ne waxi sax bu ñu wàcc day diis ci moom gisee moom suñu borom diis diis boo xam ne jéggi na dayo ndax gis suñu borom yi ay xeetu gisin la gisu bët bii dañu wax Moussa ne ko lam taraani walakin gën a suñu borom xëy na boo doon wan nooy bët nekk ndax ba tax diggante asamaan teg suuf waaye gis ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ba tax Sayyidatuna Aïcha bi nga xam ne Ibrahima am na ma baax yi nga xam ne moom lañ mooy xeetu lu bëri mooy fóoree xeet ba mu ko laajee ndax gis nga sa borom daf ne ko waaw Abdoulaye ñu Abbas ko laaj ndax yonent gis ne suñu borom barke taala mu ne gis na ko gis na ko gis na ko ñetti yoon Sayyidatuna Aïcha laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax gis nga suñu borom mu ne ko déedéet ñaar wax ne ñu ne ko mën a boole te ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne la wax dëgg la kenn ku ci ne yonent bi daf laa wàcce sa wàccuwaay si gis naa Aïcha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mu di yokk min xel bi xam nga yaa fu mu fay di yokk min xel bu ngeen di laaj seen diine ñaari ceer yëpp laaj leen koo soxla soo ko si ko ci si muy ne nit naa Aïcha kon kon ko bari xam xam na waaye suñu borom xam ne yonent bi xam na ne jigéen la te li ñu ko wax du ko àttal mu ne ko gisuma ko mu ngi ci jublu ñaari bi tamit gisu ko ndax suñu borom daa ci jur ko nag saa mu ngi jur ko nag saa xam nga bët du ko gis gis boo ko dafa daaxal bi ko Abdoulaye ñu Abbas bi laaj te mu xam ne aarif la xam nga saa bi mu ne ko waaw maanaam gis naa fu gisu xol ci xol boo xam ne moo gën a leer gisu bët gaa yi nga xam ne seen tawxiid dafa àgg ci seen xol di gis ngorom Seydina Omar nee na raa xalbi rabbi sama xol gis na sama borom tabaraka wa taala yooyu nga xam ne gis nañ seen borom seen bëti xol bi gis yi day woote ñi seen dara day woote waaye mu ngi ëppante ci tawxiid ji tawxiid yi malaayika tawxiid yonent jaam bu ko am ñu ngi gannaaw Muhammad kenn ku ne yónni kenn yónni nga ndax ñu ngi gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye da ngay am dara ngay yeneen soo yéree tëj ko xaat bu mag yi wax yi mu arab yi ñu waxtaan yi ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañoo bu ñu dikkoon bu jëfee ak sallallahu alayhi wa sallam da nga gis ci alquran rek ko fi kitaab yi jiw waaye ñoom biñ ñëw gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu am maqaama te kenn yónni ñu leen defuñu leen su ko waral ñu ay secret yoo xam ne secret suñu borom yoo xam ne moo xam li tax mu def nii mel ni téléphone bi mursal mu di ay secret wala ay ngaan naka noonu mu def ñu baalu afraadi afraadi alam mu def leen ñu dikk dana moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir xeet ak ak yàlla sallallahu alayhi wasallam xeet woo xam ne man maay njël bi nga insa bi nit ki mu leen ci jot ci ci yiw bu baax sama xeet yi mu ngi mel ne nawet mu ngi mel ne taw kenn xamul njël bi nga wala nit ki booba gees na xool gaa yi nga xam ne am nañu maqaame yeneen jële yàlla te kenn yoon nañu leen kenn solo leen solo yeneen boo xam ne dañoo war a ñu ci wutee fii indi beneen message bu bees ndax yeneen ci salaat la moom ñu ngi yeneen ni ko ko an waxee wala ci rasul waaye waxaat na di ñëw xam ne yéen dañ fi ñëw ba ba Isa di ñëw ñu soog a far li nga xam ne moo doon di nekk ci kaw suuf bu tax bu ne ummati kalmata rek laa yajra awwaluha xayrun awwaluha xayrun am axiruha sama xeet bi ñu ngi mel ba taw te xamul njël bi bi wala mu jiitu ci gën xam ngeen ne njël bi xaj bi dafa nekkoon mooy saaba yi nga xam ne xëy na xamu ne yaa si tegu tegu yaa si tegu tegu kon bu fekkee yéen ci sama sama dem ba wax ne sama xeet bi kenn xamul njël bi bi dafa mu jiitu njël bi nga doonal saaba yi nga xam ne ñoo tax nit ñi di jaaw yàlla ndax seen dara bi ñu jaayee ak seen alal ak seen adduna yëpp dem xare ba tax ba lislaam taxaw xam ne bu ñu la ñoom ak seen xeex boobu ñu jaay seen kon lislaam du jóg ba kenn di jaamu yàlla seen dara dañ am benn fu ñu jaamoo yàlla ñu am ca seen wàll ndax ñoo ko ñoo ko ñoo ko waral ñooñu bu fekkee ne sallallahu alayhi wa sallam nee na sama njaal benn sama njaal benn xeex bi xam moo gën a wala mujj kon ñu ci mujj ñu am solo ñu mën ca mujj kon ñu ci gàttal ñu taxaw foofu dañu laaj yi bari nga taxaw na solo sallallahu
islam moo jiitu ci lépp daañu wax tawxid ne fiq ne tasawuf muy diine ju mag ju sell am tàmbalikaay am digg bu mag am jeexalukaay boo xam ne buñ ko indee dara dootu manqué ñu di wax iman ak islam ak ihsan iman mooy ngëm ki ñuy gëm kan la nan lañ koy gëmee ñuy gëm ji ki ko gëm li muy mel li muy wuuteeg ñi ko gëmul fu ñu war a tàgg fu ñu war a teg suñu borom tabaraka wa taala dara yu war ci moom yu dagan ci moom maanaam yi mën a am mën a ñàkk ak yi mënul am xel nangu ko te jomb na ci moom bu am mukk kooku mooy ngëm mooy iman mooy tawxid muy fànn bu yaatu am ci nag farata yoo xam ne jullit bu nekk war na koo xam lislaam tegu ci mooy jox sa bopp yàlla li mu digle yépp nga jeexal ci sa doole ci di ko def ba sa kem kàttan jeex li mu tere lépp nga fas ko yéene bàyyi moo xam-xam bi koy jàngale nga xam-xamu soq soq rek di jàngale dundu jullit bi lépp ak lépp lu muy def li muy jëflante moromam li muy jaamoo boromam la muy nekk ci àdduna lépp xam-xamu soq boo ko faram fàccee nekk ci téere yi di ko jàng bu ci jógee nag na ngay sellale sa diggante yàlla xam ne yoonu soq nekku ca ndax soq luwaa la ay luwaa yoo xam ne jóge ci yàlla war ñëpp tasawuf nag nga xam ne mooy jàngale ihsaan bi ñu ne lii man na islam ne ihsaan mooy diggante jaam bi ak boromam rek dara doxul ci diggante bi ak yonent doxul ci diggante bi wala yu doxul ci diggante bi aarif billaay doxul ci diggante bi malaaka doxul ci yàlla rek ak jëmm ji ci fànn googu la suñu borom ñu yëkkatee ñi mu yëkkati ban àgg sa jëm jaa kaw yi fu mbindeef mën a àgg muy xaaj yi nga xam ne suñu borom séddalee woon na ko ak cofeelam ca azal yi nga xam ne daf leen a bëgg fu mu bëgg di yem teral leen fu teral di yem fonk leen indi leen ci jaam ñi ñuy buntu yërma leen di buntu texe jaam ñi di buntu xamu jaam ñi seen borom ak seen yeewute muy ñu jiitoo jiitu mu di yonent yi ak akabirul aarifina billahi yi nga xam ne suñu borom daf leen nandal ci biir bi xam ko ba ñu man di mu indi leen ci àdduna ñoom ñi ci tegu mooy olama wala aminoon yi ñu jàng ba xam lislaam biir bitti jëfe ko te defuñ ca lenn du leen yàlla may activité sharia ba mu mat sëkk xam seen borom te abdoulaye ñu ngi fi ne ñooñu ñoom moom coxeelu ñaareel bi coxeelu ñetteel bi bépp jullit ku gëm yàlla gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam gëm li mun wax lépp ne dana am muy ci bis penc ba mu bisu taxawaay bisu taxawaay maanaam mu ci ba xiraayu bàmmeel ci sukuraat ba ba nit ñi di dugg seen kër muy àjjana muy fa ca des ñooñu ñooy ñetteelu coxeel yi mu des ñeenteelu coxeel suñu borom sédd ko lépp lu mu bind ndax boo ko bëgguloon du ko bind bëgg googu nag dafa am fu muy dalee sax fu muy yem bëgg googu moo waral yàq xaraam moo waral tooñ xaraam képp nit lu mu dëng dëng nga tooñ ko daañu ko xëy ci maanu suñu borom bi ndax suñu borom bëgg na ko bëgg goo xam ne ak texe waru ca di ca topp mën na ca topp mën na ca bañ a topp lu tax dagg sax ñax boo aajo wóorul du sa aajo bàkkaar la kon bu delloo ci xaaj bu njëkk bi mu di tawxiid ni fa ñuy teg suñu borom ci suñu xol ci suñu xel ak ci suñu jëf ci suñuy wax yi nga xam ne lépp nangu gënu nangu suñu borom nangu turam yu sell yu mag yooyu ak meloom yu sax yi ci moom moom koy may moo ñu jox cofeel boo xam ne dañ koy yëg ci suñu xol ba di ko yëg ci suñu ay cër muy teew fi ñun ci suñu xol ba mel ne dañ koy gis ci lépp lu ñu bëgg a jëf ak bu ñu koy jëf ak bu ñu ko jëfee ba noppi dañ cay seet bu seetee di sëñ Tuba bind téere yi bind yëpp nga xam ne yi ci gën a bari dafa tàmbalee tawxiid nga xam ne mooy tax ñu mën a nangu diine diine bu amul tawxiid kenn du ko nangu teg ci fiq fiq mooy atte jëf yi waaye suñu borom mën na yërëm ab jaam ba baal ko mbagu mat koo xam ne moom rek moo koy xam moom suñu borom jaam bi nga xam ne ko xam fiq li fa fiq digle moom manqué ko waaye tawxiid ji moom am na ko suñu borom yërëm ko te foofu mi di sellal mooy ni ngay sellale jëf yi mu di la yóbbu ci yàlla dina ko xamal dina xamal na ngay teewloo dina xamal fa ngay teg suñu borom jàmm boo xam ne bii sàmmoo woon teg moom am na ab waay yoo xam ne doo ca àgg mukk dellu na kon ci xaaj bi nekk mu di tawxiid ñu ngi seetee tasawuru sabar wala tasawuru subar wala maxaaliq amiran wala taqribul aqsa wala téere yu bari yi yëpp ngir xam ne diine yàlla bi xam ne yàlla ci boppam xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam tawxid indi na ci lu doy sëkk tawxid li ko boole baat rek mën na koo dajale mu di ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo seedee ci sa xol nga wóoru dëggal gëm ne amul benn buur bu dul yàlla amul benn buur bu mën a lor wala mu jëriñ wala mu yëkkati wala mu daaneel wala mu xéewal wala mu mbugal budul yàlla nga seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo yonent yàlla boo ko jëlee yàllaa ko yónni li mu wax lépp da nga ko gëm kon fukki yi ñu wax ne mooy matal tawxid gëmaale nga ko ci biir benn baat boobu moo tax sëriñ bi di wax ne lépp lu génne ci làmmiñ lu génne ci gémmiñ nga ca gën moo di baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ne suñu borom tàmbaliwul fenn te du yem fenn ndax li ñu koy faral di waxee suñu borom kenn bindu ko bindul boppam te jekkiwul jekki am amul lenn lu am lu ci coobareem amee na mu ko bëggee waxtu mu ko bëggee ak fa mu ko bëggee ngeen jàngee mooy nur qudus di ngeen gis ne suñu borom waxtu wu nekk lu muy jëf day tànn benn ci juróom-benn day tànn benn ci juróom-benn xam ne ko lu mu tuuti tuuti tuuti lu mu namoon la programmé ko li ngeen xam ne suñu borom nekkul ci jamono kon jamono yëpp passé woon lu mu yàgg-yàgg ak yi ñëwee lu mu yéex yéex ak yi teew yëpp a yemoon fi moom nga daal di gëm ne kon suñu borom wuute naak mbindi fii ci lépp li mag ñi daan jukki di ko bind tuddee ko ishruna waajibaat nga xam ne nee ñu képp ku dee daañu la ko laaj mu di melal yi nga xam ne wax na noo fas ne mooy melal borom bi tabaraka wa taala su jógee tur yi rafet na ñu xam ko tur yi nga xam ne ay turam yu mu tudd ndax tur yi ci xam maanaay tur yi ak jëfandiku ba ci la ñuy xam yàlla rawante ñi xam yàlla xam tur yi ndax jëf yi moom kenn mënu koo xam kenn waru ko jéem a xam suñu borom ñu ko soob lay jëf te la ko soob lépp kenn xamu ko ko kon tur yi nga xam ne ci lay jëfe ci la xam-xam yi rawante ba nga xamee kon ne suñu borom amul li ñu naan fanu gudd fanu gàtt amu ko ndax amul tàmm amul yemuwaay nga xam ne xam-xamam dafa làmb lépp la ñëwagul ak la ñëw ñooy def ci moom ñu xam ne it nammeelam gi dara mënu koo génn bu ñu gëmee loolu gëm malaayika yi malaayika yi ay xaaj lañu malaayika yi nga xam dañoo am ay liggéey ay fonction yoo xam ne suñu borom kàttan nañ ne leen ba ñu mën ko na ko suñu borom bëggee ak ñi nga xam ne war nañoo xam suñu tur jëm suñu gëm mag ci malaayika yi ak ñi nga xam ne santuñu ñu xam ko ndax mënu nga xam ne ma ndax malaayika yi ñoo ëpp peppi suuf yi naka noonu yonent yi ñi nga ci xam ne ñoo ñëw seen tur ñëw ci alxuraan ñoom la doon waral ma jéem a xam seen tur ñu ci def mënu nga xam seen tur ndax ñu ma xat na ale ko mënu ma lam naq ale ko suñu borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam ne ko am na ci ñoom ñoo xam ne nettali naa la seen mbir ngir di wéttali sa xol ngir lay wéttali ko ci ñoom di am tasliya lu loo dal loo dal ak loo daj ci métti ak lu ñu di weddi nga xam ne sa ay morom di sa ay mbokk yi la jiitu jaaroon nañu fu mel wala fu gën a metti te ñi ngay réussir ñoom réussir nañu ko dara dugg ci loolu te ci mbirum tawxid la nekk boo xam ne yàlla xam malaayika yi xam yonent yi léegi fukk yi nga xam ne moom la Ibnu Ashir lim gannaaw yàlla wàcce na ay téere ndax bindul doomu aadama yi ba noppi bàyyi leen ci seen xel ndax xel bu fekkoon ne doy na jëmm ju ne am nga xel kon du yónni yonent du yónni malaayika du yónni leneen day bàyyi kenn ku nekk nga wéy ci sa xel kon xel ba suñu borom nam ne nu xam adduna xam nu ciy dundee xam régal yi ci nekk ak nañ koy appliquer nañ koy xam ne dañu jox xel li nga xam ne xam ne mënuñu ko xam mukk ci suñu xel moo tax mu yónni ay yonent yonent yooyu ay téere la ñuy indaale téere yi nu mu mën a mel téere lañ ko tuddee moo xam yonent bi malaaka dafa ñëw taxaw ci kanamam wax ko lan ko wax lépp mel ne dañ koo gravé ci xolam ba dootu ko fàtte mukk mu ñëw jotal ko jaam ji ci ba nga xamee ne nit ñi xamaguñu bind moo xam noonu la téere bi dikkee moo xam téere bu mel ne li ñuy wax léegi commandement yonent yàlla Isaa ci annuwe yi nga xam ne dañ ko bind jox ko ko moo xam muy wax yi boo xam ne malaayika mi day ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dégg ko xam lépp ba mel ne dañ ko gravé ci xolam du ko fàtte mukk mu wala ko jàmm yi muy li ñu tuddee wax yu muy ay xeet lu mu ci mën a doon rek mu ñoom la ñu tuddee téere yi téere yi jógee asamaan alxutubu samawiya yonent yi ñu xam ne suñu borom maanaam nubuwa am na risaala am na nubuwa mooy jaam boo xam ne suñu borom daf koo xamal ci lu jaarewul ci doomu aadama bu ko xamal nga xam ne aajuwul ko ko jàngal aajuwul ko ko yar suñu borom daf ko bind bind bu mag leeral xolam ba nga xam ne xam ne nag lépp lu baax ak lu bon di ci laaj biir bi ne fi leen wax lu ñu xamul te suñu borom chargé wu ko mission boo xam ne dafa war a ñëw ci jaam ñi woo leen ci yàlla dékku seen ay dékku seen wedd dékku seen i xorñooñal dékku seen i métital dékku seen i xaste yooyu yëpp suñu borom chargé wu ko benn ngir sabab ci sabab yi wala ngir li ñu mën a li ñu tuddee maanaam ngant yonent bi am na ngant boo xam ne yónni ñu ko ci jaam ñi waaye nag solo nañ ko ba mu fees loolu moo xam mooy melo yi mooy solo melo yépp boo xam ne ab yonent dana ko melo melal nañ ko ko ba mu des kattan ak mën-mën gi tax mu mën a jot li jaam ñi liñ ko yónni nga gëm ne rek kon loolu mu dul mu buwa mooy prophétie risaala ñëw moo di message bi ñu ko chargé yónnent bi ñu ko jotal loo bindee fii muñ lu ca mën a jógee kooku mooy mooy mursal mooy rasul nga gëm leen ci bëmbëstëne bëmbëstëne bu ñu ko waxee mooy lu wuute faram fàcce ñi waxoon ne malaayka yi def ci am ñoo xam dañ leen a war a gëm ci bëmbëstëne am ñoo xam dañ leen a war a xam seen tur am ñoo xam ne xamul seen tur waaye nangu nañ ko naka noonu yonent yi noonu la ñu demee am biyaaw ak mursaloon yëpp malaayka yi noonu dekki lu gëmee ko noonu dekki li ci doy ci gëm ko su borom kàttanam yënguwul fenn lu nekk la man bu ko neexee ak li philosophie yi di objecté di weddi ci neen yaram yi duñu dundaat ruu yi rek ndax ruu du dee ruu rek daje yëmal xel ñu atte ko mooy tilim mooy set dañoo weddi loo xam ne wax yu la moo di suñu borom di ne na nga deewee noonu la sa bàmmeel di dafa tàcc xar nga jóg taxaw fëgg sa bopp di lu penku tudd yàlla moo xam nga gëmoon ko moo xam fëgg sa bopp jublu penku tudd yàlla moo xam nga gëmoon ko moo xam gëmuloo ko woon aw ñoom fa ñuy daje jaam ñëpp kenn ku nekk suñu borom daf nga delloo na nga meloon booy dekki no sànni fële li philosophie di wax ndax li ma nga rogal mi nekkoon philosophe nekk aarif billahi nekk faqih nekk aalim tontu woon na leen ci tahabutul falasifa ñetti xeeti wet bi yi nga xam ne jullit ñi sax ñi ci nekk ay philosophe ñi ci nekk ay philosophe ñi ci Farabi ak Avicenne Ibn Sina daanu woon nañ ci Ghazali yi jubbanti na ko boolbati ko bi nga xam ne def na leen takfir li ñu tuddee excommunication maanaam ndàq na leen ci l'islam borom xam-xam yi Égypte yi borom xam-xam yi Iraq ñëpp dañoo daloon ci kawam ndeke booba gisaguñu la yoon yi bindoon ba tax Ghazali yi dàq leen dem nañ nag ba gis ko Souleymane Dunia ci chara bi mu chara taxafutul falasifa leeralal na ni nga xam ne noonu la ci nit ñi umpalee woon waaye li mu war a gëm doomu aadama bi na mu deewee woon noonu lay dundee noonu lay dekkee jóge ci bàmmeelam malaayika yi ñoom ni ma ko waxee dekk gi dogal bi loo xam ne amul dara loo xam ne day am lu ñu tuddee par hasard loo xam ne dafa daan rek am lépp lu am lu ñu programme woon la ba waxtu woon li ma waxoon ne dañ wax na ci mooy ko bis boobu dana tànn jamono ji ci ñetti jamono lu weesu lu ñëwagul mu tànn jamono yëpp yam mu tànn ci benn ngir nekk lii bërëb bi nga xam ne ci lay loolu ci la leen amel ci la koy amal diggante wetu su wetu ndeyjoor wetu càmmoñ kanam gannaaw kaw suuf mu tànn ca bërëb ba nga xam ne ca la koy amale ci melo yi juróom-benn mu tànn ci ba nga xam ne ni mu ko bindee woon ca azal bu waxtu wa jotee ca bërëb ba la nit koy doon bu dee góor bu dee jigéen ña koy war a jur ña koy yar fa muy jaar la muy lekk la muy dunde ba la koy rey waxtu wa mu koy reyee lépp suñu borom bindoon na ko ba noppi ca azal ba bindagul dara moom li xadis bi ñu wax suñu borom dafa ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne suñu borom awwal ma xalaqa Allahu al-aql li suñu borom njëkk bind mooy xel buñ ko seet rek ci suñu xel nit ñi wala dafa amul baat bu mu ko tekkee dugul xel ñu ne al-aql buñ neexee ñu ne roo waaye ba tey bokkul ak roo bi nga xam ne ñun moom la ñuy bindee te muy du suñu borom bind ci leer te mu dëkk ca mar lala te mu di ca dellu ndax du dee mukk waaye ku nekk la nga ca am ndax roo yi du genn bu doon genn lu kii yëg kii yëg ko lu metti ci kii metti ci kii lu lu naqari ci kii naqari ci kii kenn ku nekk ak sa roo waaye roo ga nga xam ne ci lañ fàq la nga xam ne moo jiit loolu yëpp mu ne suñu borom la mu njëkk a bind al aqlu al aqlu mooy lan xel moom mooy lan mooy leeru Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam bi ngeen déggee wàll yi di wax ne jaamu naa suñu borom tabaraka wa taala ñetti junni ak te suñu borom tënul aadama ngeen ni ko sëñ Tuba waxee nañu moo ko bind dañu wax ne ko ay nit roo yi nga xam ne bi suñu borom bindee rooxu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy sëmb ci ay géej yoo xam ne géej bu ci ne sàbbaa yam ci ay sàbbaa bokkul ak ya muy sàbbaa ji ci yeneen géej ya bi nga xam ne ni génn na ci géej yooyu ba suñu borom xool ko bëtul na mel roo yi mu bëggoon ci asal yi mu gën a bëgg fekk ca moom rooxu lambiyaa yi ak mursaluuna yi ak ba'du kumalil aarifina ñooñu ku ci sax leeru xol ak sa leer gëndoog leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba béréb yooyu mu daan jaar reflété ca ba nga gis na nga ca nekkee woon da nga dal di sañ wax ne jaamu naa suñu borom du jiitu aadama nanga bi junni at li nga xam ne ne kon wax nañ ne dogalu suñu borom tabaraka wa taala lépp la làmb xeetu nit ki pepp suuf yoroon mu jógee ci pepp suuf bi mu waroon dem ci beneen yëpp ci xam-xamu suñu borom la lu mu namoon la te waxtu ko nammee mu am ca lay amee mooy qadar al qadar al qada wala maa ngi yàgg nañ cee werante xam ngeen ne l'islam dañu sunnati ak mu'tazila yi ak qadar yi yone yi qadar yoon dañu nekk qadar yoon ndax dañoo dàq dogal moom dañoo nangu ne jaam bi lu mu def moo ko defal boppam ci neeram ci volontéem suñu borom defal na ko liberté boo xam ne lu ko neex mu def lu ko neex mu bàyyi waaye suñu borom amu ci nameel mu'tazili yi ni ki ñi nga xam ne jëf yoon yi nañ ko faral a déggee dama ci jaar rek ngir wane li nga xam ne mooy dëgg gi ñoom nee ñu nit lu mu def rek ci coobare suñu borom la moom ci amul kàttanu def dara amul man manu def dara ñeene leen xanaa kon ñoom amuñu responsabilité ci seen jëf kon gannaaw yàlla rek kay jëf ci biir nit ki te nit ki moom amul benn jëf nammee la jëf kon waru la am bàkkaar te waru ko bindal bàkkaar te jëfam yu baax tam yeeyowu ci dara ndax jëful yàllaay jëf li nga xam ne mooy dëgg moo di nameelu jaam bi ci biir nameelu suñu borom la bu ma la mayee permission ne demal dëkk sàngam te ñëw ci sama coobare la waaye am nga kàttanu mën a dem ndax bu ma la mayul kàttanu mën a dem joxuma la moyens yi nga tax ngay mën a dem dellu si ak la ma la fekk nga def ci ko fi kon bu ma la ko mayul doo ko mën moo tax ahlu sunna ci tudde ko al kasb maanaam faggu nit ki xolam day bëgg mu faggu kattan gi yàllaa ko amee benn mu sotal ko wala mu ñàkk ko sotal bu ko sotalee bu fekkoon ne ab ab mooy la mu sotal ko ñu bindal la bàkkaar bu fekkee ne bëgg gi am na suñu borom sotalu ko duñ la ko bindal lim la bindal itam bu fekkee ne tuub nga ko ñu baal la ko li nga xam ne da nga ko bëgg a def ci lu baax itam da nga xam ne ci biir mën-mën bi la suñu borom may ngir di la àtte ëllëg ci la nekk nga fa nga fàggu li ñuy wax kës bu nga def kës bu gi ngir jëf jëf jëf ji dogal bi ñëwul kàttanu suñu borom fekku la ca maanaam àndu ca jëfuloo ko du tee dana la may tuyaaba yéene ji bu la mayee kàttanu àggale ko nag nga àggale ko mu may la ñaari tuyaaba tuyaaba yéene ji ak tuyaaba jëf ji nga xam ne may na la ko nga xam ne lépp loo xam ne kon jaam bi def na ko suñu borom bu ko soban mën na koo fanq ba ko ko def waaye fanq ko loolu mooy coobare bi nga xam ne wa maa tashaa'uuna illaa an yashaa Allah bu na mee nga def dara itam coobare gi am mu bañ koo sotal ni ma ko waxoon rek benn muy lu baax wala lu bon waaye lu mu ci mën a doon nga xam ne kon suñu borom nammul nga def ko doo ca am benn bàkkaar ñu attee jaar bi ci dem bu ko wóoree ni posen la du ko lekk kon am na coobare bu ko wóoree ne oto bi ñëw di jaar ci tali bi te dafa bëgg a jàll day taxaw te xam ne ne bu demee oto bi ko kon am na coobare bu ko wóoree ne dafa war a liggéey ngir dund muy liggéey kon xam ne nangu na liggéey ba àllaaxira nga ne lii ma def kat yàllaa ko dogal ñu ne la lu tax ba oto bay ñëw nangu woon yàlla rek kay dogal moo mën a moo tax moo tax man ma mën a dee waaye mën naa jaar waxtu ma neexee bu oto yi ñëwit mën naa jaar lu tax néewuloo mën naa lekk posen bu yàlla nangul du ma dee du ma dee jaam bi bu laayoo ñu yey ko am na liberté ci liberté bi ko yàlla jox nag ci lañ koy attee ci jëfam waaye ñu gëm ne rek lu soobu suñu borom moom du am mukk maanaam lu ko neexul mu ba mu moom wax ko xam dara mënu koo amal naka mu ni siraat ni ñu ko daan faral wax soxla lu ñu dem ci détails yi maanaam ba fukki jeex rek balance ci tegu kaw sara démb yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak àjjana safara mooy boo dee ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rek gëm nga li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax yëpp te fukki yooyu moo ci yi nga xam ne nga ñàkk koo gëm rek dana dana damm sa ngëm waaye nga nangu ko dana nangu dana indi nga gëm yonente bi li mu wax ni sallallahu alayhi wasallam te kon na ak nga nekk jullit jullit bi ñu ko waxee woon yooyu yëpp bu ñu seetee te yi nga xam ne sëñ bi bind na ko ci tawxid lu jiitu mu àgg ci tasawuf gannaaw maahidul xudus nga xam ne taw yi fekk ko tax a jóg wax na ci masaalikul jinaan ne tawxid ñaar la tawxid bu njëkk bi mu mel ni yi ñu wax nga xam nit ki daf koy wax ci lamiñam gannaaw bi mu ko xamee ci xelam xolam nangu ko kon dañ la koy laaj ba nga nangu ko yaay waxal sa bopp lii tax ñu nangu ne gëm nga mu def jëf yi jëf yi am na ci yoo xam ne boo ko jëful ñu dàq sa lislaam am ci yoo xam ne dañ koo santaane waaye mën nañ koo bale tawxid yi nga xam ne mooy tawxid ñaareel bi mooy li ma waxoon xam-xam bi ma waxoon ne diggante jaam bi ak boromam dong la kooku mooy tawxid bu mag bi ci la yonent yi ak wàlli yi ak aarifoona billahi yi rawee ñu ci des amatul muslimina amatul muslimina it ku ci ëpp sa morom ku ci gën a dëgër sa morom ci loolu ku ci ëpp loo xam ku ci ëpp leer xol ba bëgg yàlla ak xam ko ak sopp ko nga ëppale ko sa morom nga gënee ko loolu tawxid jooju du tawxid ju ñuy wax boo déggee ñu naan al aalimu duuna ma yaqul wal aarifu fawqa ma yaqulu borom xam-xam bi fa mu waxee ak bu fa dañ ko bind ci téere rek mu jàng ko xam ko di ko wax aarif bi nag weesu na fa mu waxee ndax la mu xam la mu xam rek bu ko waxee te mën ko wax bu ko waxee nit ñi weddi ko wala duñ ko gëm la nga xam nag xelam sax mënu ko jàpp ba di ko wax ci ay baat waaye dana ko yëpp di ko gis lamiñam sax mënu ko wax lamiñ gi nga xam ne ci lay waxee mu di làng bi mu nàmp mënu cee am ay baat yu mën a leeral loolu nga xam ne yëg na ko bu mu ne tawxid jullit bi nga xam ne jullit rek la te gëm na nangu na amuk yàlla fas na yéene topp li ñuy wax lépp tawxidam ni mu demee dafay laaj ay jikko ak i melo laaj na ay jikko ndax borom tawxid waru la niroo ku amul tawxid ndax ki am tawxid boo xasee ba gëm ne suñu borom sant na ko ne na nga jëf bu ko yamalu fa sayarlahu amalakum wa rasuluhu jëf leen suñu borom kat ak ak yonentam ñu ngi gis li ngeen di jëf aji borom tawxid bi gëm na ne suñu borom dafa teew gën koo jege bu mu xolam di ko gis ci léppam mu di ko teewlu ci wéer di teewlu kàttanam gi di teewlu nameelam gi di teewlu rafetaayam gi ak tabeem gi di teewlu xam-xamam bu yaatu bi ak gisam bi nga xam ne dara rëcc ko ak déggam gi dana dal di xalaat ci moom kon na muy jëfe ci kanamu ki nga xam ne mu ngi gis léppam bu ko dee teewlu dana dem ba rus ko rus ko ci yenn ci jëf yoo xam ne bu ko benn mbindeef gisul te ñu xamaloon ko sax ne ko baal nañ la ba duñ la topp benn bàkkaar yi dana rus suñu borom ba du jëf loolu ndax teewlu bi mu koy teewlu ndax teewlu bi ngay faral di teewlu suñu borom ci du wéet moo lay àggale ci jikko yi gën a rafet mooy lay teqale jikko yi gën a ñaaw boo gisee sallallahu alayhi wasallam ne bu kenn ci yéen amoon dex ci bunt këram bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon ndax danga defe benn trim danga cay sangu fóot ca ndax danga defe benn trim ñu ne ko déedéet mu ne julli juróom noonu la demee lu tax julli juróom demee noonu julli lu ñu war a jàng la nan koy jàng rek dundal ba kàbbar soo koy jàng ndax kon du wéetal yàlla wéetal ka nga xam ne moom la laaj la muy def dañuy faral a wéet ak suñu bopp di delloo si béréb jaar waaye yi nga xam ne fokk na jaar ci te waxtaane nañ ko ay yoon waxtaane nañ tiit waa ay yoon mu tàmbalee ci sëb mujj xam nga loolu mu jëm di delloo ci di xalaat sa dund gi di ci weesu te nga xam ne li ci ëpp ak perte la te nga xam ne suñu borom bind na jaam yoo xam ne ba ñu xam ne seen nga joor ak seen jamono dañu tàmbalee jëf lu lu baax di watandi ko lu bon nga xalaat ñooñu bis penc boo taxawee ci seen kanam nañuy mel ak yow na ngay mel nga teewlu gàcce googu la nga seet jëf yoo xam ne jëf nga ko te bëgguloo kenn xam ko nga teewlu bu bis penc baa jëf yooyu taxaw doo ci kanam mbindeef yëpp ñi nga nawloonte woon ak ñi nga xam ne bu woon ñu gën la yooyu yëpp nga di teewlu ne dana fés yomal xew bu ñu ko bàyyi nga di teewlu li nekk ci sa kanam ci lan ngay dee xamagoo ko te nit ñi kat ku ci nekk ca melo ba nga dee te ngay jekkee sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na yamutul maru ala ma asha alayhi kon nit ki bu bëggee dee ci melin wu rafet na sax ci melin wu rafet melin wu rafet ni mu ciy saxe moo di góorgóorlu rek ndànk ndànk nit ki mënul a xëy rek mel ne yonent wala mel ne malaakam suñu borom daf ko booleeg bànneex muy sonn di fàtte di sawar di ñàkk sawar di umple loolu tax na fokk mu xeex xeex ak ñeenti noonu yi ñu faral di wax te bi ci jiitu gën cee bon gën ko cee mën a lor muy bakkanam bi sallallahu alayhi wasallam ne ah daa addu ko naf ko lati bay la jën bay ka sa noon bi gën bi la gën a noonoo mooy sa bakkan sa bakkan mooy ki lay xiir ci lu neex rek di la nga xam ne moom la seytaane def gànnaay ngir di la lor fekkente ne nag lu baax li nga bëgg yàkkamti woo da nga koy jàng ndànk di def sa bopp loo attan di ko def ndànk ndànk boo ci saxee da ngay gën a mën def lu baax wattandiku bee wattandiku ngay seet loo mën a bàyyi nga di ko jéem a bàyyi bu yàggee day mujj nga mën a bàyyi lépp ndax doomu aadama su borom nga ko bind ci li ñuy wax tëddri mooy progrès ndànk ndànk rek boo dee jàng sax li ngay jàng doo mën a tëb jàng doo ko benn yoon bu mokk par tuuti tuuti par bind nga koy def ba wattu alquran xam-xam bi noonu naka noonu jëf yu baax yi noonu nga koy tàgg noonu nga ciy tàggatee say cër ndànk-ndànk ba mujj mu nekk sa melo woo xam ne mun doo ko bàyyi nit ki fi mu tàmbalee yokku mooy te dem ba bu yéexee julli wala mu am ngànt ci julli mu naqari ko metti ko tiis ko fekkente ne juum na ba def loo xam ne li war ko def li ñuy wax nafsul lawaamatu muy dagare bi bakkan xam nga wala maa ngi dañoo def bakkan muy ku salti ku tiim koo xam ne lu bon rek la bëgg te lu baax tiis ko gannaaw nag borom a ngi góorgóorlu di fóotu fu mu toll rek ci saraay am na ñu ko tuddee mooy nafsul amaaratu bi suuri mooy ci jógagul waxtaan leen ko ay yoon jógagul jógagul ci jéem a góorgóorlu ngir baax ngir lay ñëw ëllëg kooku muy de nafsul amaaratu bi suuri bakkan bi nga xam ne lu ko rek la lay digal lu bon rek bu ca jógee nafsul lawaama kan bi nga xam ne léegi waxtu wax ne def na lu noonu mu dina yàgg nga di ko réccu boo yàgg daf lay ilhaam daf lay digal lu baax loo xam ne foo ñu wax diw daal la def waaye ay soo ko baaloon ngir yàlla rek dana am la noonu te li mu kooku mooy daraja bi nga xam ne mooy daraja yi ñetteel ji xam nit kon mu ngi yokk rek ci tawxiid di gën a jege yàlla ak nafsul moo gën a nekk moo ci tege mooy te bakkan bi nga xam ne léegi dégg déngeetul jub fenn tegu na ci yoon wi yoon wi nga xam ne mooy yoon wi jub wi ragalatul kay jàpp li mu ragal mooy sàggan ci jox suñu borom xàqam ak ci cër yi nga xam ne dañ ko koo dénk te dana layoon ñoom ëllëg te cër bu ci nekk li mu ca def ci lu dul noonu daf cay tâche daf cay marqué bu ëllëgee ñu di ko gis mu yoon lay rus li mu wees woon daal lay rus waaye moom léegi àgg na ci foo xam ne ak jàggam xëy na doomu aadama du ko wees waaye lu jafe bokkul ci li koy tiitale nafsu raadiyat moo ci tegu nit ki nag dem na léegi ba bu mu agsee ci dagare boobu mooy juróomeelu daraja yi gis na ci boppam yëg na ne daal tubaarkàlla jullit dëgg la am na ñu ko gën waaye moom yaakaar na ne baax baax na bu seetee boppam daal xamul lu koy ñëwal ëllëg ndax suñu borom moom kenn du naan ci mbiram yaxrujul hayyu minal mayyit wa yaxrujul mayyitu minal hayyi lu ko soob lay def te coobareem lu sew la Sëriñ Tuubaa nee na fi'latuhu daqiqatun laysa tara kayfiyatan laha allati tadabbara yuliju fi leyli nahaarahu kama yuliju fi nahaari leylam azdama suñu borom mbiram lu xereñ la lu sew la ku ko seetantali doo mën a fexe ba xam ci ab dara dara dara lu leen di jaar ñu ne day dugal guddi ci bëccëg di dugal di génne guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ni muy dugalee lu dee ndee mu di ko dugal ci lënd di génnee lënd ci ndee yooyu yëpp dana tax jàng moom du naa bu mukk ak li mu àgg ci nafsul mutmainnah yëpp xam na suñu borom xereñam gi ak sañ-sañam gi nga xam ne bu ko neexoon mu ni la àjjana rek laa yóbbu du ma yóbbu safara ba noppi yóbbu la safara te du tax waxam dañ expliqué nañ ko ay yoon ndax bari nañu ko daan laaj ndax lu sew la lu xereñ la yaa ngi jóge ci ba tey yaa ngi ci tëlwin tëlwin mooy nit ki dana am jamono yu gën a sawar am jamono yu xaw a taay dana am jamono yu gën a bëgg lu baax dana am jamono dana am jamono yoo xam ne day gën a naqari dem am jamono yu bëgg am jamono yoo xam ne boo ko sant yi mu gaaw koo def am jamono yoo xam ne dana di diital feeg yaa ngi toll foofu rek yaa ngi ci talwin ak goo ci tamkin daraja yooyu ñuy wax yépp am na yu bari yu nekk ci kawam juróomeen bi la mujj wax mooy an-nafsul mutma'innah an-nafsul raadiya bon moom la mujj wax an-nafsul mardiya ci tegu mooy bakkan bi nga xam ne suñu borom xool na ko ba gërëm ko maanaam set na amatul benn ay waaye ñu mel ne gaañu gaañu bi nga gaañoon mu wér ba wér waaye léegi baa ngi fi léegi bi ba léegi raafagul mooy an-nafsul raadiya an-nafsul mardiya an-nafsul kaamila moo ci tegu mooy léegi bi sax far na ba jëm ji nag bu fekkee ne tàmbali naa ñun loolu lépp ni ñu ko waxee moo di nit ki du tëb tëb àgg waaye nag lu mu bon bon bon am na lu mu mën te li mu mën bu ko dee def rek mu ngi yokku lu mu tayal tayal lu mu sàggan sàggan lu mu topp topp ba nga xam am na lu mu mën la mu mën teg nañ ko ko bu ko dee def dana mujj àgg fa ñëpp àgg fépp fuy àgg waaye bu guddee fa mën na fa àgg waaye li nga xam ne moo moo dul nelaw ki gëm gëm ne yàlla mu ngi fi ak melo yi ñu ko waxaloon te ci leen jëm kooku ko gëm ba noppi nag di dunde ni bàyyima bi di dunde ni yéefal bi nga xam ne adduna dong la teg ci kanam du xalaat mukk ne ëllëg dina ñëw kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu tay ndax dañu ne nit ñaar la ki gëm yàlla ak ki ko gëmul ki ko gëmul moom taxul ñuy wax ma nga ci teg fale ki ko gëm ñaar la benn muy moy wala du moy ki dul moy waxuñu ko àjjana la jëm kii mooy ñaar la benn muy mooy di ko daganal benn mu xam ne xaraam na ki nga xam ne daf koy daganal moom ku ñu teg fii fee la ndax du ko tuub ki nga xam ne xam na ne xaraam na te yëg na ko benn mu tuub ko wala du ko tuub ki ko tuub daañu ko ko jéggal ndax xam na ko nangu na ko tuub na ko daañu ko ko jéggal ki ko tuubul dee te tuubu ko kooku lan waaye jullit la woon dañu waman yamut wala mu yatut min dan bi fa amruhu mufawwadun li rabbi kii dee te tibbul bàkkaar mi mbiram ñu ngi ko joyal ak suñu borom rek laisse à la discrétion de Dieu suñu borom moom moo xam ne mu koy def lu ko soob la koy jëfe waaye mënu noo dogu ne ma nga safara wala dana dem safara mënu ko dogu waaye li nga xam ne moom jaam bi bu fekkee ne tawxiidam dëgër na dëgg dëgg dëgg tawxiid day dàq ragal lu dul yàlla day dàq bëgg lu dul yàlla day dàq itam lépp loo xam ne lii dana lor beneen beneen mbindeef bu mu mën a doon muy jullit muy yéefam daanu dellu ci dàq ragal lu dul yàlla daanu dàq dellu ci dàq bëgg lu dul yàlla nan la nit ki di bañ a ragale lenn lu dul yàlla mu ngi ay ci daraja ci tawxiidam àgg ndax dafa am nit koo xam ne mën na gëm ne lu am rek yàlla ko dogal waaye lu am yàllaa ko dogal loolu xam na ko ci xel dana ko wax ci làmmiñam waaye waxtu wu danger teewee du loola dootu teew ci xol dootu teew daf koy fàtte naaw na réer na ko ndax daf koo xam waaye di ko wax waaye meloo woogu ko meloo nekkagul meloom kañ lay dem ba àgg ci meloom bala ci àgg mu dellu si ki nga xam ne itam dafa bëgg wala mu yaakaar lenn lu dul yàlla ki nga xam ne jullit la nangu na ne lu mu am yàlla ko jox xam na ko ci xelam nangu na ko dana ko wax itam waaye bu lu mu bëgg dëgg dëgg teewee bu ñu ko bëggee xañ loola mu fàtte loola loola day far ci xolam ba dootu ci nekk mu yem ak képp ki nga xam ne xamul woon loolu bëgg ko woon kon iman naka lay yokkoo iman mu yokku nit ki dana ko xam ci ragal di ko xam ci bëgg rax ba war rahba ci la nit ki di nattoo boppam lan nag mooy tax bala nu àgg ci doo ragal lu dul yàlla ndax doo ragal lu dul yàlla moo gën a jafe doo bëgg lu dul yàlla doo bëgg lu dul yàlla jafe waaye moo gën a yomb doo ragal lu dul yàlla doo bëgg lu dul yàlla kañ la ci nit ki àgg loolu lépp dañu wax ñaari mbir yoo xam ne faral nañ ko waxtaane te mu booy suñu ay nopp ko faral di wax ba du ñu teewlu dëgg dëggi maanaama ak fa mu àgg ci xóotaay ak fa mu àgg ci diisaay mu di ñaar yi alquran tagg mu di ak dikku wala fikr moo tax muy gën di bari ci suñu waxtaan waaw ndax dikru ak fikru mooy tërbiyee nit lan mooy fikru ak dikru dikru mooy tudd yàlla tudd yàlla boo xam ne da nga koy teewlu la ñu wax tur yàlla lii njaal benn njëriñam njëriñ la jiitu mooy faxas ayib yi ayib yi xol yi ci nit ki kon nit ki bari la ba bari ko rek ayib xol yi day yu bari day taxu ndax ayib xol yi ci gën a bari bu ko seetee wax lu dul dëgg te wax lu dul dëgg ñett rek a koy tax def ragal wala bëggeel wala bàkku maanaam naw sa bopp ñett yi ñaare benn ci ñoom mooy tax a fen kii dana fen ngir dafa ragal lii muy fen ngir di ko nëbb kii mu ngi fen ndax dafa bëgg lii kii day fen ngir yëkkati boppam wala ngir miimal miimal boppam loo xam ne lii taq na ca wala ragal nañu fooge ko ko mu wax lu dëgg ngir seetal boppam ñett yooyu tax iman dëgg maanaam tawxid day dàq yooyu ndax tawxid ci boppam lu mu tekki xam ngeen mu ngi jóge ci al waxdatu mooy lenn tawxiid lenn la yàlla maanaam jëlal naa ne xam nga ne kenn du buur ku dul yàlla te kenn bindul ku dul yàlla waaye nangu nga ne suñu borom moomam lépp te lépp ci moom lay dellu te lu am moomam nangu nga loolu. waaye nangu nga ko nag dama waxe woon rek mooy da nga ko wax xam nga ko waaye ni nga gul soo melo dëgg dëgg dëgg dëgg melo ga nga koy meloo ma ne nag dikru ak fikru boobu. fikr bi mooy tudd yàlla tudd yàlla waxtaane nañu ba tàyyi ci ay waxtaan ne kii tudd yàlla bu fekkente ne dafa góorgóorlu ba dindi ayib yu bon yi ci xolam xol néeg la ayib yu bon yi muy mel ne yàpp seytaane mooy xaj bi xaj bi bu xiifee boo ko dàqee ci néeg bi mu gis yàpp yu itam booy dëdd muy dugg si naka noonu kii tudd yàlla itam buy tudd yàlla te jikko yooyu nga xam ne mooy jikko yu bon yi nga xam ne jullit waru koo amee mu ngi ci moom waxtu wu noppee seytaane dugg si moom ki nga xam ne nag seetal na xolam ci jihaad combattre ay jikkoor yu bon ba mu dañ bu xaj bi ñëwee xool dara lu muy lekk ne ko fi day dem te du dellu si waat mu kooku la seytaane di bàyyi loolu dikkur boobu nag balay gën a setal sa xol noonu ba nga xam ne seytaane daf lay wattandiku wala mu di la romb fikru daf ci ànd fikru mooy lan mooy méditation mooy xalaat nit ki war a xalaat dafay bari xalaat yooyu nag moo lay tax a sant yàlla ndax boo xalaatul lim la defal doo ko sant te gépp xéwal bu la yàlla xéwal te sant loo ko ca mbugal dana ca war mbugal dana ñëw mooy tax ndax boo seetee ñi nga xam ne suñu sañoon di yow yaa ngi yàllaa ngi la jox sa ñaari bët sa ñaari tànk ñaari loxo wërsëgal la looy lekk doo xiif jox la yére yooyu sol ba mën a dem ci nit ñi amoo jàngoro ji tax ñu di la daw yu bare bare bare bare bare yoo xam ne boo ko seetee muy xéwal yu màgg te sa xel sax du ci def ndax am ay bëgg-bëgg yoo bëgg ci bëgg-bëgg adduna ba doo xalaat loolu bu fekkee nag yaa ngi xalaat yooyu loolu te xéewalu yàlla gi tàmbaliwul foofu jiitu na ko ca sa juddu mën nga woon a juddoo ci réew yoo xam nga doon jullit ndax yow tànnuloo fa ngay juddoo tànnuloo ñi lay jur tànnuloo ñi lay yar tànnuloo boo dee doon góor wala jigéen wala boo dee doon ci xeet wi wala ci xeet wee yépp boo ko seetee xéewal yu mag a ngi ci yoo xam ne boo ko fàttalikul doo sant suñu borom mukk cant nga xam ne moo la war yow nga jóge ci xalaat te xalaat ni ma ko waxee woon sa kanam ñaar yi boo ko boolee dikr ak fikr suñu borom dafa ne alladina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaqta hada batilan subhanak suñu borom ñaax nu yedd nu ci kii maanaam yi ci suuf si bari ba dee te duñ ci waar wa ka ay min ash-shaytan alladi yamuruna alayha wa hum muriduna ñu ci ne lépp lu ne nit mën na caa gis yàlla waaye ku ko ku cee gis yàlla mooy ki yàgg a xalaat ki yàgg a xalaat ma ne kooku mooy mën a julli mooy mën a julli julli ki nga xam ne mooy fóot nit ki ba mu set ba nga xam ne bu ko defee juróomi yoon ci 24 heures yi doo fi defee benn bàkkaar ki nga xam ne mooy xalaat noonu xalaat yooyu di xalaat turaay ba mel ni suuf si ni mu diise yëpp waxtaanee nañ ko ba tey xalaat yooyu mooy tax bu kàmbaree julli rek bu bëggoon a xalaat mbiri adduna sax dootu ko mën ndax dana ragal ba cëram yëpp di lox ndax day teewlu màggu suñu borom gi ndax màggu suñu borom gi yàlla suñu borom li muy rëy ni mu diise lépp balay diis ci sa xol ba nga di ko yëg yëg koo xam ne daanaka dootoo bëgg dara moom rek a ne ci sa xel fokk li ñuy wax dikru ak fikru nga boole ko diir bu yàgg li ma waxoon rek progressivement ndànk-ndànk da ngay dem ba mujj nga àgg foo xam ne boo geesoo sa gannaaw da nga naan ah man kat ndeke soppi ko naa fi da ngay seet boo gisee ñu naan ziyaare borom xam-xam yi day indi yërmande yàlla waxtaane gaañu baax ñi ñu yërmande suñu borom day wàcc moo di xol yi nga xam ne ci lay dugg bu fekkente ne dañu ne boo dee jàng histoire sax nga gis gaa yi juboon musiba yi ñu leen dal ci àdduna muy nattu suñu borom di nit ñu jubul ñu leen bañ ndax li ñuy def mënuñu ko nga di ca am métit rek tuyaaba jubul jeex la rawatina kon bu dee nitu yàlla koo xam ne moom la ñuy waxtaane yooyu yëpp day yokk tawxid ndax tawxid dem na ba àgg ci bu ñu la doon sànni ci safara soo xam ne dañ koo taal ba nga xam ne diggante asamaan ak suuf lu naaw romb ko daanu ci sax yaa ngi koy yemale ba loolu amul ndax daanaka sax xel moo tax ñuy togg nit jëf moo tax yi koy dal ñu di ko ko toppat moo tax yi muy yëpp mu di ko yëg waaye nit ki bu gëmee ba ngëmum ëpp doole xelam ba nga xam ne yu bari dootu ko xalaat suñu borom dina dindi yu bari digganteem ak aaday adduna yi dégg ngeen faral la ñuy wax ne sëñ bi bi mu jullee tisbaar ba noppi bi mu waaj a julli tisbaar te jàpp te kooku di ko laal tam leer ko ne loolu mënul yàq njàppam sori na ko ndax nit koo xam ne foo toll yàlla kese moo fees sa xol gisetoo lenn waaye mat gi mu mat ndax dañ ne al kaamilu man laa yutfiqu nuuru maarifatihi nuura wariihi kaamil dëgg la xamam yàlla lu mat mat du fay mukk leer gi muy sàmmanteeg sharia ak ak maanu gi maanante moo tax mu daal di jàppaat waxtu nekk mu jàppaat ngir bu ko dara laal jàpp mel ne ndax ni ngeen xamee ne daawul julli mukk te jàppaatul lu mu am amee njàpp ba julli boo ko waxee mu ne góor kenn du ko jox lu dul wata góor kenn du ko jox yàpp foofu naan bi muy sànni der bi ci géej gi seetul géej day labal wala du labal pour moom yàlla rek kay labal te li ko mën a lor mooy waxtu wi rek mu yéexe ko waaye leneen amul muy lore leneen amul te yàlla lii rek la ko sant fi sax kooku mooy lépp dàqu na ci sa xol ba dara gisul lu dul yàlla yàlla kese moo des ci sa xol bu doon safara suy tàkkit noonu la ci sànnee der ba buñ ko wàccee woon gaal gi it moom mu ne ca gaal ga ñooy yëpp képp ci moom Seydina Abdullah ibn Abbas waa Madina dañoo mës a jógee Misra ak seen caravane maanaam seen njëkk dem ba ci yoon wi am ñu jiitu woon gis gaynde ci yoon wi gaynde bu góor ak bu jigéen ah ñu daal di yéesal seen i gëléem bàyyi ba gaynde gi dem Misra bi mu agsee nag moom ne leen yéen gën a teel a noppalu ne ko dafa am ay ndog ment yu nekk ci yoon bi mu ne ah dal di waaxu ba àgg ñu ne nuus ci nopp gaynde gi womat ko ba mu sori mu këdd ko dafa demal nit ñi dañ la ragal ñu ne ko waaw xanaa yonent dafa amaat kon da ngay yonent su ko naa Muhammad mu ne déedéet waaye dama dégg Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne jaam bi bu ragal dara lu dul borom suñu borom du xiir dara ci moom du gaynde du jaam du jiit du safara du lenn lu tax nag Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jiit fettoon ko fekk muy julli lu ñu mat a lu ñu war a leeral la ndax bu fekkente ne jaam bi bu ragal lu dul yàlla suñu borom du xiir dara ci moom moo di leneen la moom yonent la yonent nag na mu gën a niroom nit ñi gën a wàcc gën a niroom nit ñi la gën a mate wala yu mu gën a wuuteeg nit ñi na la gën a mate na la gën a jege suñu borom yonent nag gannaaw dañ ko war a roy moo tax suñu borom yónniwul malaayika ci nit ñi ndax kon malaayika yi duñ ko mën a roy ndax du sëy bañ mën koy roy ci sëy du mën a indi attey sëy du mën a du jaayante gën du lekk du woor mënu la woor ndax du ku dul lekk doo naan yooyu yëpp day dàqu te lu mu sant rek la ñu war a def lu mu sant duñu ko def te kon diina ji du mag moo tax suñu borom da ci doomu aadama la sàkk yónni ko te doomu aadama boobu la nga xam ne moom la yónni lu tax mu gën nit ñi gën malaayika yi gën jinne yi gën lépp dafa fekk ne bi nga xam ne suñu borom ñu ngi koy indi ci adduna da leeram gépp nga xam ne adduna attunul genn wàllaatu milliémam mu tànn ci la nga ci xam ne mooy li hidaayati naasi rek mu indi ko ci moom def ko nag muy doomu aadama di niroo doomu aadama ñu mën lépp te du jëfe lenn du dul doomu aadama yi di jëfe buñ seetee yennati ulama yi ci jamono yi dañuy wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañuy dàq kéemaan maanaam moo ci ne yonente bi musul indi benn kéemaan bu dul alquran xanaa dañoo fàtte booba al isra